non da koy da yéen a ko gisandoo fi nga xam ni moom moo di jàmmalaay nekk fii ci tey nit ñi am ñu fenn foo xam ne mën nañ faa tour seen baret lu dul di ñëw ci place bi gis nga ñi def ko ay gaanuwaay am ñu fenn foo xam ne mën nañ faa dem tuur fa seen i ndox danoo ñëw ci place bi di ko fi sotti lii nag day daal di jur ay feebar yi nga xam ne tey géej ji da koy daal di jël ñeneen ñi bu ñu raxasee wala ñu togg wala ñu def dara dañuy daal jël ndox mi ñu sotti ko direct ci li nga xam ni moom mooy géej gi bu ñu gënee zoom gën a dee na wan ay yenn nga xam ne moom mooy am ci plage bi da ngay ree ba ndax xale yi nga xam ne après dañuy ñëw di sangu ci géej gi tey mën nañ fee nekk porteuru feebar bu ne parce que tamit kenn xamul lan moo fiy sotti ndox mu butitu jën yeeg butitu xar yeeg salté yooyu noonu yëpp bu ñu demee ci géej gi nekk ay résidu tey xale yi dellu si waat ndox nekk ci géej di sangu mën na jural ay ay musiba wala ay feebar yoo xam ne mën na leen a gaañ soo xoolee soxna si gis nga ko dafa demoon noonu moom tuuri ji bay doog a ñëw di génn ñu ngi noonu daal comme ni ñu ko mën a rek encore une fois daal ñuy ñaax ñi nga xam ñoom ñoo yor wàllum voilà comme ni ma ko waxee rek ba tey ñu ngi fii ci plage u Cambérène bi gannaaw bi nga xam ne xale yi ñoom nekk na ci géej gi di sangu gis ngeen tamit li nga xam ne moom mooy insalubrité bi nga xam ne moom lañ mën a noté bi nga xam ne moom moo nekk ci plage bi non seulement agression bi nga xam ne moom moo am ci côté environnemental bi ci côté environnement bi aussi tamit dinañ bokk ci li nga xam ne dinañ ci fas wax interroger si ay nit ndax lii tamit xam nga doon na loo xam ne fu bërëb boo xam ne ay nit dañ fay fréquenté nga ñëw gis ko mu mel nii ci terme si saleté ci sax barit gannaaw loolu sax li tax tey sunu teewaay bi fii mooy que ni dañoo wax noonu Eh, dafa am ñoo xam ne dañ fee defoon benn à benn à ordure defoon fi nekkoon fi ñu def ay salté yu bëree bëree bëree bëri waaw lan rek moom moo waral tey vidéo bi li tax ñuy def vidéo bi mooy dañoo bëgg ñaax nit ñi nga xam ni tey ñoo nekkee fii ci libi ko ñu gën a mën a ngir aar seen bopp aar ñi nga xam moom moo ndëkkal ndax soo xoolee ci plage bi tey di nga fa gis ay ndaw ay xale yu yoo xam ne xamuñu dara ñoom rek nekk ci géej gi di sangu gannaaw loolu aussi tamit ñu ngi sàkku ci autorité yi ñu jéem a xool naka la ñu a créer fii ay berne yoo xam dina mën di recevoir ordre yi ñuy ñëw di sonn si ndax bu ci su jën yeeg salte yooyu noonu tey nga xam ne gi da koy jëlaat di ko gannaaw loolu xale de di ñëwaat di sangu ci même ndox moomu ndox moomu tamit nag mën mën a mën na jox ay feebar xale yi jël feebar yooyu yëpp ko ci kër yi ñu commencé di dem gis ay xeetu feebar ci jamono ji nga xam ni danoo nekk si jamono pandémie covid 19 te tey lépp loo xam ne lu nit di yëngu rek lan rek moom moo waral tey vidéo bi li tax ñu def vidéo bi mooy dañoo bëgg ñaax nit ñi nga xam ni tey ñoom ñoo nekkee fii ci Libye kër ko ñu gën a mën a dellu